vingt et un la ñu pour le moment validé mais euh, bu ñu demee ba ñu toll ci. Naby Vision waaw une dizaine mën na nekk c'est très possible. trop même waaw c'est c'est pour euh, repréciser ak ñi nga xam ne comprendre gu ñu ne ñii ñu parrainage bi jàll. Mhm. c'est pas forcément ñoom ñooy candidats yi war a élection présidentielle parce que des na aussi pour ñu ñu valider loolu yëpp. 11h44 mhm. minutes xam nga sànq maa ngi lim ne Sud Quotidien dafa xëyee visage yi nga xam ne ràññee nañu leen bu baax a baax ay kàngam lañu ci wàllu politique ñun nag dañuy privilégier ñi nga xam ñu leen mm-hmm. torop ci walu politique mm-hmm. té ñu ngi def ay djégo té mm-hmm. loolu euh, jamono euh, fofu la tollu c'est important n'est-ce pas sans que wax ngeen euh, bougan muy ka bu doy war et compliment ah bu complexe bu compliqué docteur Abdourahmane Diouf ka bu complexe bu compliqué mais toujours est-il que encore une fois si lim nañ ko fi wax nañ ko fi né amna yo xamné c'était au préalable lañ ko waron def donté ciow li bëri na mais processus bi c'est déjà enclenché waaw donc du taxaw. non non lii nii. maanaam parrainage bi. waaw c'est fini maanaam élection bi ci boppam. ah non bu soobee yàlla bu jàmm rek day am danañ ko def 25 février. 2024 bi ñu ne. report mënta am. yaakaaru bokku parce que fi yëf yi toll boo xoolee ba xool président Macky Sall njëkkoon na ba ñu fi waxee élection yi xam nga loolu sax yoon moo ko ko may dafa jékki-jékki feddliwaat kàddu gi fab istiloom bind def décret boobu ne jàpp nañ ko ci gàpp boobu ba moment bi ñuy waxee nii gisaguma man ci sama bop gisuguma lutax ñu wara mëna mën élection yi euh, euh, man sax gisuma gisuma dara lu xew parce que bu fekkee candidat yi déposé déposé ni ñi ngi dem di wuti parrainage réew ma ngi dal nit ñaa ngi xëy di parrainage gaag ni jall la li ci dess ci walu yoon nek fi xanaa jëlee jëlee carte électeur ak dem non xamna bu fekkee dem bu fekkee mbirum Ousmane Sonko la président Macky Sall ak seen mbir nga xamanteni ñi ngi wax ay dialogue ak ñi ngi wax na ndax duñ ci woté waxtaan ak duñ ci duñ ci def nangam japp ma né lool moy sabab lool moy sabab ñu pousse li nga xamné moy élection yi élection yi mom bu doon am machine la dama nan machine bi tak na Euh, tàmbali naa daw bis yaa ngi daw. Hmm. léegi étape bu njëkk bi moo nekkoon étape bu parrainage. Hmm. Euh, ña nga ca te le bu ñu noppee dañuy déglu dañuy nga xam ne mooy conseil constitutionnel xuma kañ lay taf kayit bi wax ne ñii ñoo jàll. Hmm. Euh, ñii ñii ñooy doon ay candidat waaye yaakaar naa loolu moo nekk ci kanam. nag te ñëpp di ko xam le 20 janvier après le dañu di kàngam ci wàllu politique doon ñi gën a fës. ci arène politique bi. waane itam seeni coalition ñoom ñoo jël raw gàtt ci parrainage bi bu ñu jëlee kaaw benno Euh, jël kaaw Yewwi Askan Wi. Hmm. nee naa bu ñu doon lim ci ñi nga xam ne validé nañ seen i seen i candidature ci euh, hmm. euh, parrainage yi. ñaari coalition yooyu def nañuy jéego. ah non non coalition benn bokk yaakaar deful dara. Hmm. ci député yi la dem rek moom moom. Ah, moom wutul sax pare. moo Khalifa Sall yëpp ñëpp. non je veux dire. visage yi ñoo xam nekk biir benn. ba génn bu yàgg te ñoom ñëpp doon candidat ñoom sax boo xool. ñoo ay candidat hmm, waaw ñëpp ay candidat parce que parce que Aly Ngouille Ndiaye ca la nekkoon Thierno Alassane daa yàgg rek waaw bokkoon na ci ah, hay duggoon na ba newoon ministre sax nga ne Aly Ngouille Ndiaye Thierno Alassane Sall Mame Boye Diao Mame Boye Diao mi waaw Idriss même sax ak Boun Abdallah waaw ñoom ñëpp duggoon na léegi na bon ak ak la des fële. ñii est-ce que defuñu benn genre. ah bon déet déet ah, ah. mënu. quelque chose ah. y quelque chose y a quelque chose qui <laughs> yaa ngi wax ne ah saa si xam nga ñu xamul de yaa ngi wax ne bu ñu demee ba cappaandaw la am na ñu dul de. am na ci dama la noppi leen rek. ñuy yi dañuy wëri. Hmm? mais déglu ay affaire yu nante la ñu def mais Habib si lu wax. Habib si benn. bokk ci waa Yewwi Askan Wi dégg nga lu mu wax. moom dañ ko par moom dafa daf ko joxe xaalis ba pare. ñu parrainel ko mu jàll mu ne waaw mais bu Ousmane Sonko bokkee ma bàyyi. waaw ça veut ko moom loolu loolu rek mooy gisinam la loolu loolu mën naa nekk waaw non waaw loolu mën naa ne mooy mooy firi li may wax ni ci candidat yi du ñëppay dem ndax hmm. xam nga dèjà moom kee mi ngi wut xeet gannaaw gu mu wéeru hmm. wala bu dul kooku moom day daal dellu ginnaaw parce que mën naa mu jàpp ne mën naa mu jàpp ne bu ñu bokkee cause bu muy xeex te kee mooy moo gën a nekk ci kanam moom la nit ñi gën a jox bopp hmm. muy muy wut may wut perte temps la kon naa dem wut li ko da xanaa xamuloo ne moo la moo la moo la gën a xam ne Habib Sy moo la gën a xam ne xëy na nag ci politique la nekk bu ko neexee waxee nii waxee naa moo la gën a xam ne Ousmane Sonko Naby Vision waaw xanaa kay lii mu wax nii ne su fekkee fekkente ni bokk na man damay damay rëccuwaat sama la kenn mënugul a firi en tout cas euh, candidat euh, benn yi ñi ñoom bari nañ moom hmm. maanaam hmm. maanaam maanaam ñi jàll man hmm. léeg-léeg ma posé question parrainage bi ni ñu wax ne noonu la jafee mais le cas ni ñu ni ñu wax ne parrainage man kay benn bi man moom attends euh, stratégie bi ni ñu waxee ne noonu la jafee askan wi booy xool ci penc mi ni ñu ni ñuy wone ne ñi ci ëpp ci ñoom dañoo woon ginnaaw benn bokk yaakaar ak ñi ñu àndal ñii génn parrainage jafe ku mel ne Bougane jafe ku mel ne aminte Touré. waaw jafe ku mel ne euh, Mary Teuw Niane. waaw jafe ñeneen ñu bare bari. waaw euh, Mame Boye Diao mën a am parrainage. waaw Ali Nguy am parrainage. Boun Abdallah Dionne am parrainage ak ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi noonu te kii leen lim ñooñu am parrainage day am mbir moo xamante da nga ci posé question que am na fu mu jafe am na fu mu yomb parce que nag am na am na léegi ci caat ah. na lépp mën naa am na tamit ñoo xam ne bi ñuy mer mer mer gàddu dañu yóbbaale seenu nit mel ne Aliou Ngouille Ndiaye par exemple dans le Jolof moom bi muy dem. dafa ne mais parrainage du Jolof kese aussi. waaw loo man moo tax ma ne dans le Jolof rek yamandee mhm. moo tax ma ne ay nitam nitam mën nañoo nekk Ndar mën nañoo nekk feneen ak feneen mhm, mhm. ñooñu nag bi gars yi di faax dañ leen yóbbaale ndax daf ci am ñoo xam ne ni tey xanaa xamoon même Aminata Touré jàllul mais bi muy bàyyi waaw waaw waaw kay loolu tam mën naa ne man ngaa génn ñëwaat moo tax man la fi mu toll nii am na ñoo xam ne dañuy jàll parrainage ba pare wëriwaat ca gannaaw ñëw ñëw bootuwaat hmm. ah léegi loo ci mën hmm. nga xam ne ndam li duñu génn hmm.

ubbil nañ ko itam puisque ah, soppee ah, émission bi la mm-hmm. damay bañ a wax leneen loo xam ne kii parce que euh, Maodo xarit copain am la <laughs> voilà sinon rek ma sànni xeer fii léegi après après président ne ma wooye mais tu sais fiston marché ma ne ko ah non président ah man moom <laughs> <laughs> mais comme Maodo est là je je voilà merci maa ngi bàyyi mu set am na am ma déggu ñu tudd ko ñun ka ca Qatar xatar moom moom mbiram fu mu toll. Karim. Ah. ah jàll jàll na de. jàll na pare na jàll na nga ci man ah foofu man tax man ak bokkam ci élection yi ah xëy na mën naa ne waaw Abdou kañ lay ñëw al ma ci xam xam nga non loolu loolu sax c'est pas mais yaa ngi wax lu am solo nga ne bokkam ci élection yi oui parce que man Karim pour mu bokk ci élection yi nii ah mais même Khalifa Sall sax est ce que kam set na Khalifa Sall pour bokkam ci élection yi ah baax na maanaam kon Khalifa Sall Karim Wade en fait seen dara leerul waaw waaw man de pour man ba jàpp naa ni ba léegi par rapport ak ñeneen ñi waaw ñoo ëppi coono ak jafe-jafe merci bu wesso parrainage yeeg yooyu. gis nga mais parce que boo c'est important ñu taxaw parce que cent cent milliards. Mhm. moom la ñu wax né mom la Rémy di jël réew mi. Mhm. té man yëgaguma fu ko fayé Ah, léegi nag est ce que dialogue ba. Hmm. ba ñuy wax naan dialogue ak xalifa dem nag yooyu ndax Karim daa ñëw te a faale ñëwul hmm. sax. Hmm. te lañ ko doon topp ba léegi gis ma fu ko faxase ne ko baal nañ la ko te dégg gis ma tamit fu président Macky Sall génne ab décret amnistie leen wala mu baal leen. waaw yooyu yëpp nag nañ ko bàyyi suñu kanam. kaa yu am solo la yu war a taxaw waaw te ah, loolu itam non c'est loolu itam bu bu loolu lépp génnee encore une fois <laughs> bu loolu lépp génnee bu ñu seggee seggaat naka nga xooy tamit xaw ma. waaw ba tame bi lay tame bi. lépp bennoo lay dellu rek. ak na hmm? ah. mais nag bëri nañ de. mais attention am parti politique ah, ah, d' accord woon ci opposition bi ay ay jamono wax. en tout cas doy na waar sànq yaa ngi bëgg a wax ci kaaw Malick Gakou nga ne. non parce que moom xam nga Malick Gakou nit ñi dañ koo dañ koo bàyyiwul xel moom bi mu bokk ba mu duggee ci guvernement mhm. ba ni mu génnee nii taxaw te nag wax na ko ay nit wax nañ ko ay policiers wax nañ ko ñu bokkul parti wax nañ ko kenn mënu koo topp dara. na Naby Vision. moom laa gis ci homme politique boo xam ne li nga def ci état yëpp ak fi mu jaar yëpp ak li mu xeex yëpp ci wàllu politique Malick Gakou mënoo ne un franc wala dara. wala justice wala top nañ ko wala cour des comptes wala zéro. d'accord te yore woon fi sport d'accord on, on verra bien ce qui ce qui adviendra de ça jigen ñi tam bu wesso Anta Babacar Rose Wardini jiite woon na fi dak ville de ah, Dakar. wa wa moom jàll na jàll momi tam itam eh, finalement jàll je crois que finalement euh, bu ñu valider confirmer seen candidature donc ñaari jigen lañ nar a am. ci ci kii bi ci élection yi. waaw ah, confirmer nañ. pendant que pendant que sama jigen ba ay dem ba ñu sepp ko. waaw ay dem ba sa jigéen gis naa gis naa itam soxna. kii kii saw Sidibé. Mm-hmm. am satu saw Sidibé am satu saw Sidibé moom itam muy muy wax noonu ndeysaan. loolu ma ñeewante ko loolu itam jaaxalu la. maanaam ah, euh, taxawaayu taxawaayu jigéen ñi ci boppam. par rapport ak élection yi. xam nga lool sax dañ ko war dafa waroon a gën a yokk. Hmm. maanaam jigéen ñi dañoo waroon gën a yokk nekk ay ñoo leen di gën a jàppandalal ñu nekk ci wàllu candidat parce que euh, candidat parce que gis nga ñi fi jàll ñëpp ci wàllu politique nii Aïda Mbodj ci gën a agréé ci wàllu politique gisuma ko ci ndax moom yor na fi ay fonction ministérielle et cetera et cetera ba noppi bokk PDS yàgg naa reyante ba fii mu toll nii man sax man jaaxale naa sax ci Aïda Mbodj naka la mën a fexe ba ba matalul man daal loolu di ma jaaxale nekkoon fi maire di jiite fi Bambey nekk fi ay ministre yooyu ba noppi mu am parrainage man daal loolu li Mbacke doon. ñoom ñoom maam Boye Diaw ñoom ñoo ñoom ñu mën a matal. encore une fois on l'a dit et répété système B, c'est pas parfait Si électoral poser problème parce que voilà euh, parrainage que forcément ah non non merci à parrainage hein. techniquement merci beaucoup en tout cas Oustas merci à tous de nous avoir suivis